ak jàmm ci lii ni kay xëy tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien Karim Meïssa Wade tey jii la gën dogu ci lu jëm ci élection présidentielle yu 2019 ne da ci samp ndëndam li koy firndeel dëgg-dëgg yéen ne ci fichier électoral ci benn commission bu nekk ca Koweït te tey jii Karim Meïssa Wade ne kenn mënut a fexe ba du samp ndëndam koo xam ne kii moom itam fësal na ne day mooy njiital grand parti Malick Gakou moom Malick Gakou ci yéen i kaay lépp loo xam ne jar na rek rek ñu def ko ngir démocratie bu Sénégal gën a mën a ñoŋ rek noppi na ngir def ko tax dool te tey jëlee Mame Malick Gakou ne bu faloo ci bopp réew ci élection présidentielle yu 2019 lépp loo xam ne jëm na ci assises yeeg lañ ko waxtaane wak nañ ko tëralee moom ci boppam dana ko doxal Dakar Times le li nga xam ne li koy dëgg-dëgg askan wi réeroo nañ ci te kenn daanaka bokk ci ay ci projet de loi mooy lu jëm ci askan wi tey boo jël juróom benn fukk dëgg lan ma wuutale mode de scrutin ak critère de scrutin boo jël ci ñoom tamit juróom-benn fukk ak juróom-ñaar yëpp ànd nañ ci limité moo xam nag lu mu mën a jar bu jëm ci projet de loi ñeel mbirum parrainage téeméer boo jël ci askan wi yéen kabli Dakar Times juróom fukk ak juróom-ñeent yëpp ànd nañ ci ni waaye li nga xam ne moom mooy projet de loi boobu la ñeel mbirum parrainage téeméer boo jël ci askan wi juróom fukk ak ñaar yëpp dañoo jàpp nguur gi ci boppam moo ci gën a gis boppam ki gisul boppam dëgg-dëgg ci projet de loi ñeel mbirum parrainage ak dossier Khalifa Sall mooy professeur Ibrahima Fall Walf Quotidien professeur Ibrahima Fall kay ab cour magistral dëgg-dëgg nag la def gannaaw ba mu jàppee ne projet de loi ñeen mbirum parrainage bi bu fekkee ne président Macky Sall ak nguuram dañ ko bëgg daal di amal ngir fexe ba lu jëm ci parti politique yi ñu daal di koy wàññi loolu lu mag a mag la rax ci loolu tiit moom professeur bi ne tey jëlee lu jëm ci mbirum Khalifa Sall dossier bi ni ñu ko doxalee jarul ci yoon la avis bi conseil constitutionnel tax ba mu ubbilaatee njiitu réew mi yeneen ñaareelu mandat yoo xam ni benn bu nekk juróomi at lay observateur ne eh, projet de loi bi moom ba tey amul guñ ci ak jubo moom njiitu réew mi sax ni fi ñu toll ni nangu na ngir ñu waxtaani lépp loo xam ne jëm na ci eh, taux de pourcentage bi ngir ñu daal di koy wàññi waay eh, mun te waxtaan ak opposition boo xam ne bi ñoom dañ ne du ñu toog ak njiitu réew mi ak gouvernement ngam ah, kon nag nañu dem ci mbedd mi waay njiitu réew mi ne luñ ca góobaloon na rek nañu ko gar observateur ni waxtaan dox na ci diggante professeur Abdoulaye Bathily ak président Macky Sall Aliou Fall conseil politique bu président Macky Sall ci ni cabinet audience dox na ci diggante ñaari kilifa yooyu la te tey jëlee moom Aliou Fall ne bu fekkee ne tamit fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril askan wi la ñu bëgg a ci mbedd mi nañu xam ne xel ni opposition bu Sénégal moo leen bëgg a tur leen dem askanu ci boppam amuñu lenn loo xam ne lii dañu koy def ci mbedd mi mbedd mi moom faw opposition bi daal di fay teew yéenekaay bi di Vox Populi ne fukki fan juróom-ñeent ci weer avril bi kay daanaka ñoom ñëpp fi ñu toll ni joxante nañu daje ca place Soweto ne duñu nangu tey duñu yu nekk fii si Ndakaaru ñoom itam ne noppi nañu ngir fukki fan ak juróom-ñeent ci weer avril bi ñu dem ca place de Soweto ngir jàmmarloog ñi nga xam ne ñi dañoo bëgg a projet de loi bi ni mel loo xam ne moom itam bu ñu muy la du yomba jàllale dëgg-dëgg mooy lu jëm ci accord ñeer wàllu napp gi ci diggante gànnaar ak sénégal rémi quotidien ne donte ne ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu napp gi ci réewu sénégal Omar Gueye doon na xamal ne duutu yooyu la nga xam ne ni ki 2015 ba tey dafa tëggate mi ci diggante ñaari réew yi fi ñu toll ñaari réew ba tey jëlee amaguñ ak juboo donte ne sax Assane Samb ne wax waroon na lool ci lu jëm ci accord de pêche yooyu la waaye li ko gën a diggante diggante ñaari réew tax ba ñaari réew yi daanaka talaguñu lu jëm ci accord yi ni mel ñu nekk ci désaccord fi ñu ni mooy kilifa yi ngànk SAR SAR africaine de raffinage yéen kay bi dëgg-dëgg nag moo am ci ay milliards yoo xam ne moom la ñuy rumandaan ne dañu ko luubal ak yenn contrat yoo xam ne dañu koo xatim te conseil d'administration bi ci bom sax yëgul li ni mel yéen i kay bi ne tey war a amal am ndaje te ndaje mi bu ñu mooy dëgg-dëgg ne ki xam ne kii mooy directeur général bu SAR danañu ko wàcce observateur ne ki ñu xalaat toll nii muy sëriñ bu pë gannaaw société sar boog jafe-jafe mu am geneen kër goo xam ne kii moom itam mi ci ay jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci ni kay bi di source a mooy maison de la presse maison de la presse ak njiit la di Bara Ndiaye yi ni kay bi ni fi ñu toll dépensé nañu koy doxale daanaka dara jaru ci yoon ba ci budget 2018 bi te yi ni kay bi ne ki xam ne kii moo ci waroon indi ay leeral dëgg-dëgg di directeur général ba di Bara Ndiaye moom Bara Ndiaye ci boppam dafa lànk tëdd a bu fekkee ne leeral da ci am dëgg-dëgg du ñoom koy leeral waaye ay kilifam ci boppam la koy leeral Sénégal dara leeragul ci lu jëm ci atteb imam Alioune Badara Ndaw ñeneen ñi ñu joxañ baramu tuma ci kañ mbirum terrorisme jëlika bi di vox populi ne awka yu imam Alioune Badara Ndaw li ñu bëgg dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne kii mooy colonel Diack bu section de recherche commissaire Diop bu dikk ak général Cheikh Gueye ba ci waa semga ñoom ñëpp war nañoo taxaw ci kanam attekat bi ndax dañu yëkkati woon ay xabaar ci lu jëm ci atteb imam Alioune Badara Ndaw boobu lañ te ba fi ñu leen ci dara kii yoon laaj ni ci lu jëm ci mbirum terrorisme moom la ak mbirum moom Abou Zibar yi ni cabinet étudiant la woon ci wàllu géographie ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fi mu béyi ko ci Ndakaaru ba dem ca Nigéria fekki waa Boko Haram yéen kay bi ne loolu leeral na ko ni ki ci kanam attekat bi wàllu tàggat yaram yéen kay bi ne mondial 2018 bi fi ñu toll nii ñu ngi ci wàccaay gi waaye fi ñu toll nii dëgg-dëgg la ñuy mooy karamboo ci ndax dana mën a bokk ci lu jëm ci mondial boobule ak gaañu-gaañu bi mu am ci óom beek wala Roger Mendy ni bu fekkee ne Neymar dana bokk ci coupe du monde bi karamboj moom itam dana ci bokk euh, Cheikh Sidi Ba moom ne daal li ci gën jamono ji mooy équipe nationale bu Sénégal rawatina entraîneur bi war naa xool dëgg-dëgg ab plan xam ne kii moom mooy karamboo nekkul ci 100 pour cent